وفي التعلم وفي التعليم وفي الزغال بهدى المعلوم فقل ذا شكر وذا توسل بالمتوسف عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسفوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول yaa maaliki yaa xaaliqal anaami amit awaaya qallilan manaami yaa maaliki yaa xaaliqal anaami amit awaaya qallilan manaami yaa xaaliqi yaa kaamila sifaati laka sakaytu kasratal aafaati wa anta zul jalaali wal ikraami فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا وعن وطيعك بنهج المصطفى سنة البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب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 bi xoramatil mahbuubi Ibrahima. ndigal yi de moom daanaka chaque année sëñ Mountakha nii la koy diglee wax dëgg yàlla heure bu nawet bu jibsee wala bu ay jafe-jafe amee ci dëkk bi comme xel yëpp day maasi jëm ci moom moom it day boole lépp ak li mu yor lépp rek delloowaat ko ci yàlla muy digle am jàng alquran wala jàngi xasida delloowaat suñu xel ci yàlla delloowaat suñu lépp ci yàlla te dëkk bi it yëngu na lool maasa ñëpp xam na ne Sénégal moom fi ñu toll nii soxla na ay ñaan. te it xel yëpp ci Sëñ Muntaxa la jëm moom it day delluwaat ci yàlla rek delloo ñëpp ci yàlla nii la koy diglee chaque année jàng alxuraan sàkki sarax jàngi xasida tuub delluwaat ci yàlla te kilifa noonu rek lay doxalee moo tax doxinu kilifa ak doxinu ñi fi jiitu woon rek noon lay doxalee léppam daal ci yàlla la koy delluwaat tey lii ak seddu xol la boo xoolee njàngum alxuraan moom moom day seddu xol daal wax dëgg yàlla am ak seet ak xol bi sedd daal lañ ci àndal ñun. nañ ñaan yàlla mu ñu koy yàgg digal ñu koy yàgga di man rek di ko yàgg di fekk di ko yàgg di ko defee ni mu ko bëggee. taq-taq réew mi nag ak naqare bi moom ñëpp la métti ñëpp la métti amul ku méttiwul nag waaw su jàmm moom suñ ko bëggee moom dañ koy am ndax sëñ Tuubaa fi ne ak El Hadj Malick ñu baax ñëpp ñoo fi ne kon yaakaar naa lu baax loolu moom du fi jógee. waaye nag ci eh, borom réew mi bu bëggee jàmm am fi jàmm fi ndax moom eh, loolu mooy eh, war-waram ndax taxawaay buñ ci taxawaay rek nun jullit yi la ko taxawal ak nun taalibe yi kon kon kon kon kon nun la ko taxawal ndax miti miti yëpp gis na ko waaye nag jàmm ji daal moom fi mu ne kilifa gi ngi gi fi ne moo ko yore. bis bi de képp ku xool rek dana am lu la jox ndax euh, la sëñ Moussa Ka daan wax naan moo jaa ku dee di fekk balaa di xam le waxtu yaay balaa di ñëw ci nit ñi ba balaa ak si mu sàkku ay sarax lii rek moo koy firndeel. Euh, képp koo xam ne nekkal nga fi sëñ Touba jàmm rek moo la ñor ndax moom waxuma la jàmmi Touba waaye jàmmi àdduna moo ko ñor. kenn ku ne xam na Cheikh Mouhamadoul Mountakha taxawaayam ci dëkk bi ak ci bitim réew fépp fu fu fu fu doole màgg kaat na màgg fa rek yërmaandeem romb na loolo moo waral tey jii nii mu woolu fii ci jumaa ji ak fépp fuñ ko mën a defee ci Touba ak fépp foo xam ni taalibe murid nekk na fa ci àdduna nga wàccee fa kaamil jàng fa ay xasaayit ñaan suñ boroom mu def jàmm ci réew mi ak ci nawet beeg joomi aadama yëpp rek jàmm daal moom la bëgg euh, bis bu setet ci loolu lay dox di ci wax sant nañ ci bu baax a baax nag ndax euh, lii mu def nii moom xanaa ku ku yàgg gis moom du lu bees ci yow ndax xam nañ ni lu ñuy def di ko def di ko defaat ndax euh, jàmm rek waaw loolu daal la. àdduna ak lii ànd li may dénk seen yi daal di ko dénk sama bopp di ko dénk ñëpp mooy politik du lu araam ci buñ ko defee ni ñu ko war a defee. du loo xam ne nii nit war na cee mën a tàqalikoog magam wala mu tàqalikoog rakka wala mu tàqalikoog famille ku ne am nga sañ-sañ ànd ak ki àndal te du tee nga accepté nit ki ki mu àndal lépp mën naa rafet ku ne xeexal ki nga war a xeexal wala nga défendre ki nga war a défendre te teew bu élection jotee ku ne woteel ki nga bëgg a woteel réew mi nekkaat ci jàmm politique daal jëruwut noono jërut xuloo jërut dara ñi ànd ak kee nan ànd ak kee ñi ànd ak kee ànd bu élection jotee ku ne woteel kala kala neex jàmm am loolu daal laay lancé ci jeunes yi lay ko laaj sama bopp di ko ñaanal yëpp di ñaan nag tawfeex ak taysir di ñaanal suñ Muntaxa Mbàkke mii yal na yàlla guddal aw fanam te bàyyi ko suñ kanam yal yàlla guddalu fanam na ko murit yëpp ñaan ñaanal suñ Muntaxa yàlla guddalu fanam te xam ne sagu murit la sagu àdduna la. di sant sëñ Bamba bu baax a baax ndax noonu ay murit lañu ay jullit lañu di di it nag nag ndigal rek la ñuy dox. li nawet bi moom dañuy ñaan sëñ bi day ñaan ñaan na ko ba noppi moom kon moom jëruñu lu ci wax boobu ñaan nañ ci ba noppi. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew